waaw oustaz Bassirou Dieng ah. waaw mu mel ni fan yi ñu génn oustaz dañu bindoon article jëm ci yow mu ñeel ñu ne dañuy dañ la fekk ak li nga xamante ni moo di yàmba. Mm-hmm. Mhm. tey ban jàngat nga am ci lu ne mel ndax euh, loolu lu wér la am déet. déedéet man man bi bindee article bi joxuñ ma ko defuñ adressé wuñ oustaz Bassirou directement. Mhm. mais dañoo adressé koñ bu ma dëkk dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne. Mhm. ndax euh, critères yi nga xamante ni moom lañ jox article bi ustaas bi. Mhm. dafa dafa critères yi dafa xaw niroog samay critères. loolu la mais article bi joxuñu ma directement ne man la. Mhm. waaw waxal maa ngi lay dégg. yaa ngi dégg. article bi waxul ne man la. mais critères yi mu joxe woon ne ustaas la imaam la. te yàlla dogal même koñ bi ma nekk fi ustaas nekk fi imaam. loolu moo tax ma jël. Euh, kii bi vérifié ko ndax am na ñoo xam ne tey bi ñu liiree article bi ñoom dañ maa woo sama yéen am di jaar dañ maa woo laaj ma affaire mhm. man leen man sax man sax de yëguma yëguma nu mu demee après gëstu woo xam ne leeral bind na ko ma woo la après yenn média yi xam ne ñu ngi mhm. ma woo leen laaj leen ñu ne ma effectivement affaire bi am na mais nag ak waa ji da doon jiite da jiite ne côté suñ côté yii ñu dëkkee ci kaw la dëkkee. yéen ban côté ngeen dëkkee Saara Gileel Saara Gileel. mais nag euh, man maa ngi dëkk Saare Gile te waxoon naa la ne la Saare Gile dafa ñaari quartier la. Mm-hmm. wax Saare Gile extension mooy cité Charbon. bi ngeen di bind article ngeen bindoo cité Charbon rek kon man ma cité Charbon. te oustaz ko arrêté cité mais mais lu lu wër la am na oustaz boo xamante ni arrêté nañ ko. li ñuy ah. article bi li ñu bind lu wër la. en tout cas bi ma laajee Ousseynou Pape Ousseynou Diallo. Mm-hmm. journaliste euh, correspondant l'Observateur fii Tamba. Mm-hmm. nee na ma wér na nee na côté këram la dëkk nee na may tey tey lañ koy siise waaye man nee na ma tey lañ koy siise waaw waaye nee na it wér na moom kay moom nee na wér na moom journaliste nee na wér na ci ay police léegi yow yow tamit en tant que oustaz ndax dox nga ci tànku jéego dem xool euh, ki ñu jàpp kan la ndaxte tamit euh, mu mel ni dafa mbubboo woo tur oustaz yi waaw loolu laa bëgg ndax nee ma tey lañ koy siise ndax dama ko doon laaj Pape Ousseynou na kër ga fan daara ja fañ wax daara ja fan la ndax man ma dem fa ma xool ba xam kii da doon jàngale wala déet ak jën jàkka la doon jiite loolu it bëggoon naa koo xam. Mhm. mu ne ma comme que dossier la boo xam sis sis la nekk. Mhm. te comme que affaire drogue lañ ci tudd wóor ngay def déplacé wu di dem pilier ba heure bi mhm. parce que xëy na ko nga fay dem ndax boo ko demee xëy na maanaam police mu ngay continuer ay enquête am foofa. ma ne ko way effectivement loolu it kon euh, euh, a d'accord lii moo ma fàttee dem mais kon dama ko doon dem tey tey suba. d'accord. Mhm. d'accord kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mu mel ni rek li nga bëggoon euh, mooy euh, nga xamal waa Tamba rawatina ci gar ci quartier bi nga xamante ni fa nga bàyyeekoo que ni Saara Gileel que ni du yow waa cité d'accord que du yow lañu yow la ñuy jiiñ waay waay. kon nag ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mu mel ni euh, téléspectateur u Leral TV ak internautes yi dinañu ñi faree euh, koñ boobu dinañ jot ci xibaar bi dinañ xam ni que ni kat euh, du yow la ñuy waxal mbir mu ne mel ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf ok merci